procureur Casamance day ah ma ne la wax na de la solo yéene kay ne song bi nga xam ne amaloon nañ ko ci ba waaw am na ca lag leer nañu ah, la ñoom la ñuy laam-laamee ne maanaam ñoo yónni ak ñi nga xam ne ma ne la procureur de la république ba day ak lieutenant colonel Issa waaw ma ne la na am song la woo xam ne day dañu ko préparé waajal ko te ca rey nit ña la ilaha illallah colonel day section recherche waaw nee na nga xam ne dañ leen a defeere jébal leen procureur day ay firnde yu leer ay preuve yu leer la am ca ñoom laa la procureur ba yemu ca ca su ko ne déggoo leen ma de am song la goo xam ne day dañu ko waaw te la lienaa boobee boppam ne kon xoolal ba nga xam ne kon foofee la ñu nit ña moo demal boppam la ko tijjee man day maa leen di wax na turu lienaa boobee ma ne la sanguinaire ku miin àll bi la lool moo rey fukki doomu aadama ak ñeenti yeeko ca Casamance googee waa ji alaaji lay wuyoo alaaji maa la ko wax réew mi quotidien ne waa ji nga xam ne nag maanaam moom moo santaane kon rey gi day teg nañ ko loxo de maa la ko wax libération yi kay ne waaye ay mbóot yu doy waar di ay révélation ah ci René Capitaine Bassène mi le ak Ampoix Bodian waaw enquête yéene kay ne journaliste bi René Bassène waaw mbaa du kon moo santaane ñu ne day yoonu kuréelu FIPI Casamance yooyee la daal di kon jël nag di waa MFDC Jean Marie François bi yàgg ci yéene kaay gi ne enquête bi nag bu yeboo ñu laalli ko fa président de la république laay waxal na jëlee enquête yi kon ci rébellu Casamance yooyee di waa MFDC ëppal ëppal o oh. ah, réew mi quotidien ne ñi nga xam ne kon maanaam ñoom ñoo rey ni day waaw ci ndigalu waa MFDC la de kuréelu FIPI nekk ca diwaanu Casamance ooge song a ah, maa la ko wax wal fajiri ne a tëddee teg cax laa ilaha illallah laa ilaha illallah bos fob li ne dëgg la ca booru ci loolu la mbir mu kon xewee jàppale nag ñett ci ay soxna day danoo yegg seen kaw violé leen daal di nangu nag seen ñetti million laa ilaha illallah laa ilaha illallah l'observateur xanaa xamoon ne song bi nga xam ne kon song nañ ko ca ba faa googee waaw ba daal di fay faat lu ci toloo fukki doomu aadama ak ñeent day même enquêteurs yi sax dañoo rëcc ah maa la ko wax de bu doomaa saane mi ah daan naan xeme ngir deewee ci biir gendarmerie ba bu ko defee nag ñu dugal état ba oh, enquête ba tribunal ba du yomb de tribunalu Xalifa Sall ba day ah sur quotidien nee na ñi xam ne ñoom ñooy xam ne kon ñu ngi koy nii waaw bennoo bokk yaakaar la dong dong bennoo bokk yaakaar dong nekk ci ma ne la lii règlement de compte la maître Youssou Touré bokk ci ay ba léegi ni lee nee na xam ne kon nañ leen di topp day ay escalier lañu ngir mën a jot kon ci Khalifa Babacar Sall maître Seydou Diagne ne la ca gën doy waar mooy ba ñu dooree at ba léegi ni la day ñin mënuñoo fexe ba Touré ne képp koo xam ni kon ñam nga ca kees googe da ngaa war a ñëw teew ni ab complice laase Moussa Siréy waaw ma ne la ubbi na kees ga maa la ko de maire Parcelles Assainies nee na gis nga kees avance googe waaw Macky mi ñam na ci lekk na ci xamante nenu nag Abdoulaye Wade ci boppam kon yàgg naa yónnee ci Papa Diop ancien maire ma ne kees d'avance yi waaw ca lañ doon jël def kon ay activité politique Macky laal na ci ñam na ci cay kees d'avance ka Khalifa man kay li may laajte sax mooy est-ce que président Amérique di Donald Trump mais est-ce que nekkul ci dëgg sax nag bu demee ba ne ñun suñu réew yi ce sont des pays de mar de taali de ko fi wax de rajo la de yow sax lañ ko fale fale ba fale baa ci ginnaaw assemblée nationale waaw lii lan la Barthélémy Dias ne dara waaye bëre bu kee mbaam la fa ñuy daane lee kay enquête en tout cas de ñii layal xalifa Sall waaw nee ñu lañ koy toppee daal nañ ko yéene kaay ne président Macky Sall day woote na def waaw ma nga continuer ba léegi ni leen di tuumaal bureau assemblée nationale ne fukki million daal lanu ne moom la bëgg jox nag ab député bu ne mu dem kon defaru ca waay eh samba waaye ay député day naataangoom yi nekk ca opposition ba ak noon aligne yi waaw nee nañu ñoom day déggaguñ loolee ba léegi ni lee ki ñëpp doon déglu démb day wax na Walf Fadjri ne xalif général yoonu murid yi première déclaration mi ngi doog a wax moom Serigne Mountakha Mbacké seetu Serigne day ci kanamu jëwri nii ak kilifa ba ci porte parole ba Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké Serigne Mountakha Mbacké nee na samay moom xalif général ne leen laa fi nekkal yéen laay liggéeyal man mii day maay seenu jëwri oh, vous êtes mes tuteurs je votre serviteur la ilaha illallah Mbacké ne ku dem ma dem ku demul ma dem barke Serigne Touba ma leneen man Mbàkke lenn talu ma ko te soxlawu ma leneen it lu dul ngërëm ak ñaanu Serigne Touba kese la ilaha waxtaan wi nga xam ne ñu koy waxtaan day ngir jàmmi élection yi processus électoral ba waaw opposition ba nga xam ne ñoo toogoon ca waxtaan ba day tasaaroo nañ de maar day daali waaw parce que waa Front day ñoo duumaal Modou Diagne Keita mi ak Abdoulaye Baldé ne Macky Sall la ñooñu di liggéeyal yaa jum wala maa ju waa Front National la ma ngay toni sol jëppi mbaxana ba nekk douanier ndekete yoo a faux douanier la laa la ma sëggam loo waa këram jabaram ak njabootam ba mu tàmbalee bëggante temps yi ak genn xale bu jigéen ab pharmacienne la kookoo ko daaneel de maar day taali waaye ba ñu defee l'enquête ba day waaw gendarmerie section recherche un mësuñoo gis ku tudd Amdi Laay Mbeng xaw ma Amdi Laay Ngom ca douane bee amu fa vox populi ne ma ne la ñaari atu yàlla mu ne douanier la te mësu koo ne ba muy a takk ñaareel nag la daanu <laughs> alaaji lii nag mooy tës dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax du ma ci commenté dama naa la alaaji tëjal